دومن جيجا مصابرا لو من تي أمن تحب سامرا أم أم سخن نكيت سخن سبقو جمل الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi mbokk jullit yi ak fu ngeen mën di nekk ci àdduna Serigne Mansour seen mbokk seen xarit dellusi na fii ci Islam TV jataayu laayante biir mbokk yi ñoo ngi tegandi woon sunu mbaaram ci laaya ji màgg ji cent quatre-vingt-trois ci deuxième suura di suratu albaqara gannaaw ba ñu ko firee ba ca laaya cent quatre-vingt-sept léegi nag ñu jublu ci almaani ñu jàngoon yaa ayyuha alladina amanu yaa bi ci boppam أيوبي هابي الذين دي اسم موصول آمنوا دي نمي وحلنك تمو دي أهل الإيمان كان ووت بنك نداء الإيمان ووت بنيقم لن لن دي سنبرم دي وو جي ويرو كور ويرو كور وينغا قمني دنكو ni dañ ko war a Euh, farañ fàcce woon nañ ko ci jotaay bi ñu weesu bi xamal ñu ni ah du yéen rek lañ ko njëkk a farataal waaye xeet wileen jiitu woon wala xeet yi leen jiitu woon ndaka lañ koy defee nag dañuy delluwaat ci sunna mu jàngal nu ko ndax nun sunu koor ñàkk lekk ak ñàkk naan gi timis la wala fajar la ba timis andak ak guddi gi nag sàmmonteeg ormay wèr wi ñanu jitu won nak demul won nonu kon ki bëgg wax ni man qur'ani la hadith duma ca laal koku mom xam ban diina lay nek yaakaruma muy nek diina l'islam ndax diina alquran ji bàyyi koowul ci asamaan si rek ni cëpp ci yow dafa bàyyi koo ci asamaan si jibril indi ko jox ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ni ko sa nuqri'uka fala tansa ni ko waratalnaahu tartila waaye yemut foofu mu ne li tubayyina linnaasi maa nusila lii ñu wàccee ci yow nga jàng ko ba mokkal ko te doo ko fàtte fala tansa loolu na nga ko leeralal nit ñi léegi boo nee nag kàddu na nga ko leeral gi moom duma ko jël du sotti yàlla na yàlla fayal ñu mag ñu baax ña tadwil nañ ñu xaddis yi jële ko ci ñen ko jëlee ñoo ña jële ko ci ñen ko jëlee ñu jële ko ci sahabatu rasul الإمام مالك رحمه الله يلا يعني يلا فيلا إمام أبو حنيفة الإمام شافعي الإمام أحمد الإمام البخاري الإمام الترمذي الإمام أبو داود الإمام النسائي الإمام محمد بن ماجه الإمام الحاكم أك الأئمة الكرام أئمة أهل السنة والجماعة liggéey nañ liggéey bu rëy comme ni nga xamee ne ulamaul quran ñoom it dañu toxalal al quran di ko toxalante góor par góor ba mu àgg ci imaamu nafia ci benn càllawle abdullah ibni omar abdullah ibni masud saxaaba yu tell yu tedd yooyu zayd ibnu thabit mi ngi noonu jazallahu bil xayraati anna aimmatan lana naqalu al qur'ana adaban wa salsala يالنا يالا فايل نو غور يالا يوي توخالال نيو القران مو نييو سي نون موي تيم تيمي توخالال نيو سنة مو نييو سي نون مو ناني يلا يلا فايل نيو لين مبوكي كون موتاخ ديغ اك عرب رك دو موي تاخ nga meuna ديغ القران فوك رك مو نيك التفسير الماثور بي ني جيختالي سي بروم خام خام يو ماغي تا بوكنا سي نين سي گندليم الامام ابن كثير bi nga xamni ma nga gane aduna ane 701 ba 774 mu dund 74 ans ndaka nono ko ko jitu won di tabari ndaka nono ñuy top ci seen ginnaw ci kat yu magi ba ci bu yagulo ci sunu siècle bi rek a cheikh Uthaymin ci tafsiram bu mag ba di as-saydu athamin samin na yalla fayal ñu len motax ci fofu rek lañuy nafar di xol di fa jele di xool ndaka lañ koy commentaire dëppale ko ak sunu jamono waaye lépp rek delluwaat ci athaaru salafu saalix ni lu du lool duñ ko sañ mbokk yi kon loolu la ñuy laabire mbokk yi kon koor ñenu jiitu woon ak seen koor waaye ñun almuhim mooy farataal nañ ci ñun tamit koor waaye lu waral mu farataal ko ci nun laallakum tattaqun ndax ngeen am li ñuy tudde taqwa di teet la yàlla tere waaye di taxaw tem ca la mu digle koor nag boo ko déggee sant wadd wala jaxate wala mbay wala siise amaat na fii tam xaw a férféri ndax mu ni toute la journée diiraa bëccëg bi du lekk duma naan dana xaw a metti ci moom borom bi ni yàggut ay yaamam maadudaat ay fan yu ñuy lim la ci ay waaraam الشهر هكذا وهكذا وهكذا weer nii la muy fukk yaari fukk ak yetteelu fukk ba nga wàññi benn baaraam bu fekkee lëndëm na ñu mottali suñ mottalee nag feeg naag feeñut moom daal di wari rek kon ayyaama ma'dudat ci yërmande sun borom gis nga bam koy tambali dana ya ayyuhal ladina muy wote bi yermande lima len di indil ak yermande la ndaysan ben yolamal mi ngi waxu la nga def ko 40 jours comme ni ko ñenn ña daan defé way ñun julit mi ngi nonu fani weer wi fani weer wi ñu ne fan wer jullit yi di soxla kon weer woowu kañ lay teru ak kañ lay jeex moo tax bi mu paree foofu ba leeral ñu lu jëm ci wàllu moytu alal ju daganut dafa dellu siwaat daa di ñuy wax ni yasalunaka yasalunaka an il ahillati qul hiya mawaqitu linnaasi wal xaj weer wi teru tey mu feeñ sew commencé di màgg ba yàgg mu commencé waat di tuuti ne leen borom bi wax leen ni borom bi moo ko programmé noonu ngeen xam ci mandargay jaamu yàlla yi ak jamonoy aj bu neexoon borom bi mu teg ko ci calendrier jant bi comme niñ ci tegee calendrier julli aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi layli jant bi buy waaj a jug ak ba muy taxaw ci digg asamaan si di dat mbu ba muy commencé jeng ba muy taxaw ci digg asamaan si di dat mbu muy tisbaar ba muy jeng muy tàkkusaan ba muy soo muy timis ba mu dee ba dugg carrément muy gee li duluk shams ila xasaqil layl bu neexoon borom bi mu dateel nu ko ci jant boobu waaye borom bi tabaraka wa taala ci ngëneelam di ñu def loo effort ah li nga xam ni moo di weer wi ñu def effort di def ay effort def ay góorgóorlu ci kañ lay fenk ci kañ lay feeñ mu ngi noonu ñu tàmbalee ci sunu koor ba ca topp kañ lay feeñ ñu jeexal ci sunu koor suuma li ru'yati wa aftiru ru'yati feeñee ngeen woor bu ngeen wori su leen demee ba leen ba mënoo leen koo gis wala mu dox seen diggante ay xiin xayaaya fa in gumma fa akmilul iddat yaani iddatu weer wii di bëgg a jeex matal leen ko salaasin muy fanweer yonent alayhi salaam moo nu jàngal loolu Euh, ni nii lañ koy tàmbalee nii lañ koy jeexale waaw moo tax mu ni ayaaman maadudaat ba léegi ci ci ci bi sopp loola mbir mi sa xel dal ci surtout yow mi sant euh, ah, wadd surtout yow mi sant mbay ah fa man kaana minkum maridan aw ala safar ku wopp ba koor gi di ci moom wala mu tukki tukki bi diis ci moom kon na jàpp ab lim bu koor gi jeexee lim boobu mu jàpp te mooy fan yi mu ñàkk a woor ngir tukki bu metti bi wala ngir wopp ji mu daal di koy fay su ko defee nag ki nga xam ne nag amoon na ngànt mënatu la woor ndax maladie bi ko gane si kooku moom nay lale fidyatun taamu miskin waaw ah ki nekk ci tukki nag tukki bi jafe kooku mu bañ a woor moo gën laysa min biri birri sawmu fii safar ca jamono yonent sallallahu alayhi wa gisoon nañu mbokk moomu woor ba bëccëg am ñu ko tiim di ko ëpp yonent alayhi salaam ci yërmandeem ja mu ni lu xew ñu ni ko moom kat koor gi moo metti ci moom ba muy xam ndax li mu nekk ci tukki mu ni leen lii kat bokkul ci wut aw tuyaaba laysa minal birri sawmu fi safar waaye ki nga xam ne nag moom bu mi ngi tukki waaye koor gi moom amul jafe-jafe ak moom kooku moom waxee su ko kooku anta suumoo yee ay ngeen woor xayrun lakum waaw in kuntum taalamuun xam ngeen yiw wu rëy wi leen suñu borom tabaraka wa taala dencal mbokk jullit lii nag ci laaya ji weesu ak ji tamit 83 84 foofu laa tollagum njàngat yu am solo yi ak yeneen yu bari bari mooy ni alquran mooy ni weeru koor weer la wu màgg weer la woo xam dañ cee digle woor ko la commencé timis ba fajar siy xar weer la woo xam ne it am na luñ la ci may ci ki am ngànt ki am ngànt mu limal ñu ci ki nekk ci feebar wala ki nekk ci tukki am na fu ngànt li di àgg sax teggal nañ la koor gi waaye teg la beneen jaamu yàlla foofu tamit sew sew bu am solo ma ngi fi ndax mbokk euh, koor buñ ko tuddé xel dem ci xif ak mar donte le nak am na xamni ñom ne nga mam dañoo sante ci la buñu ñu publicité koor cafetière ya lañuy wané ak dogu mburu ya ak beña ya ak tandarma ya ma japp ne nak buñ doon publicité koor wané kamilu alquran njàngum alquran ma naafi la ja <laughs> yooyu <laughs> waaye nag yooyu moom ñoom gars dañ koy soxla lol ci waxtu dog wi macha allah kon euh, koor bi nga xam ni mbokk mi wopp na ba mënatu la woor jabet bi am na fu mu àgg ci moom feebar bi am na fu mu àgg ci moom ba nga xam ne waratu toog juróomi waxtu yum dul jël garab te jël garab mënta ànd ak koor te yaakaaru ñu mu mu wér ay calmement rek la koku day def fidya fofu la soxla nga gis ni koor xiif ak mar bi ñu ni la li nga koy remplacer xiif ak mar bi mooy fajal keneen xiifam ak maram julit bee toll ci woor jox ko loo xam ne bu dog bu dog jotee dana ko mën xëdd ci loolu mooy remplacer sa xiif ak sa mar si xiif ak mar wi ñu la tegoon la koy faj la ngay amee tuyaaba mooy lexal keneen taamu miskin fi di taamu miskin lexal keneen aw miskin loolu mbokk jullit yi dañ ciy jànge ni euh, du xiif ak mar wi rek maanaam coono bi du moo tax ñu teg ñu koor waaye ak jaamu yàlla la dañ ci jàng ne Ramadan madrasa tarbiya la tarbiya nafsiya tarbiya ruuxiya yar sa bakkan bi defar sa moom weeru koor moo tax ngay ñàkk lekk ñàkk naan di profité ci njàngum alquran di naafile ci guddi gi gannaaw bi nga xamee ne ndogu nga moo tax borom bi ci ñetteelu laaya ja quatre cinq من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ويركور لي موي وير ويغا خمني تي لا القرآن ندخ نيت ني امي تي انغب ندخيت اوكازيون لا تي ني ليرال لين اك نغب تيري بي دي لين كو ليرال تيخال دغ اك نين والفرقان ba taxna képp ku teewe ne weer wi na ko woor waaw ku wopp wala mu feebar na jàpp lim boobu mu fay ko yeneen bis yuridullah bikumul yusra yàlla ak jàppande la namm ci yéen wala yuridu bikumul usra nammul ci yéen teg leen ak toskare walitukmilul iddata lim bañ leen sant muy weer wi ngeen matal ko su matee wali tukabbirullaha ngeen màggal yàlla bàkk ko ala ma hadakum ci ci loolu ngeen di ame ak njub ixwatal iman laaye ji moom it ñu taxaw ci borom bi dafa tànn weeru koor daal di ciy wàccee li nga xam ne moo di alquran kon wéru koor moy gëna tedd ci wéri alladhi unzila fihi alquran mu tànn laylatul qadr daal ci indi téré bi inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahr ma xamale lan mooy laylatul qadr moo gën junni weer waaw 83 ans yu tek ñeenti wër ci ashuhurul qamariya waaw xayru min alfi shahr dañ ciy wàcc ba fees del malaaka yi yërmande malaikatu ruuxu fiha bi idni rabbihim min kulli amr mu guddi goo xam guddi jàmm la ba fajar ga salaamun ya xata matla'il fajri borom bi ci sotu duxaan mu ni xaamim inna wal kitaabi mubin inna anzalnaa fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin euh, mu ni ci guddi gu barkel la wàccee téere bi di alquran moo tax kon weeru koor barkeel guddi ga barkeel ndax ci la alquran wàcc alquran ak ay ngëneelam lu mu bokkut ak lenn Seydina Muhammad sallam ci moom la suñ borom wàccee alquran kon mu daal di nekk afdalu rusul mu daal di nekk dikk gën ci yonent yàlla yu tedd yu baax yi ci moom la yàlla wàccee alquran kon mooy day daal di gën màkka fa la alquran commencé wàcce mu nekk dëkk bi gën ban dëkk moo ca topp dëkk bi nga xam ni moom gannaaw màkka moom it alquran wàcc na fa ba cay topp baytul muqaddas bi nga xam ne alquran tudd na ko subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila masjid al aqsa kon lii lépp seen ngëneel alquran alquran lu mu lu mu àndal rek dafay bari ngëneel moo taxit ci xadisu Ousmane ba muttafaqun alayhi xayrukum man taallama alqurana wa allama ka gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba mën ko di ko jàngal ñeneen alquranul karim dafa am njànginam bu mu jagoo mu di tajwid tajwidul quran man lam yujawwidil qur'ana fa huwa aathimu al imaamul jazari ko ci waxu borom bi warattilil qur'ana tartila imam ali radiyallahu anhu mu ni ay wa jawwidil tajwida alquran boo ko dee jàng dafa am njànginu boppam buñ koy dee jànge nga respecté maxaarij bi maxaraj bi maxaarijul xuruuf yi respecté leen fañ war a xëcc taawi ko mu mu yem mu mu gàtt taawi ko mu yem taawi ko mu ni taweet ba juróom benn masque nga bàyyi ko xel kaamul mëdd fa nga xam da nosol sa kàddu mu di xunna ca idgham ya ca ixfaa ya ndaka noonu bay am ca ca iqlaab ba ndaka noonu ca axkaamu noonu saakina xuruufu yarmuluuna ak yadmu nga bàyyi ko xel bàyyi xel xuruuful izhaar dégg nga hamzaha xaaxa ayn gayn muy juróom benn xaraf xuruful izhaar nga bàyyi ko xel yëpp sifaatul xuruf yi min xaytu alhams azalq ilax safaara ba yéen ñi jàng alquran yéen a ma ko gën a xam mi ngi noonu di xeetu xam-xam boo xam ne nag dañ koy jàngee ci université yu kawe yi boo demee gànnaar fonk nañ ko lool waaw xam nañ fa daara ju ñuy wax takwinul ulama nga xam ni boo egsee moom foo mënti jóge bale ñu lay jàngal lenn da ngaa sukki tari kaamil bi sukk tari kaamil bi ba mu jeex ñu doog a commencé jàngale de nga dem jaami al islam madinatu munawara mu am kulliyatu wa ulumi al quran al quran ak ay bagaasam nga xam ne jëmm njàng mi da ko jagoo ci tajwid bi jëmm tafsir bi li ci rot ci ay téere tafsir ulum xam-xam yi ci pacco bagaasee mu àndal min xaysu ilmu naxwi wa sarf min xaysu ilmu lbalaaga wa axawaatuha bayaan badia maani yëpp nga maîtriser ko yëpp mbokk yi am njàng la moo xam ne njàng mu rëy la waaye njàng mu yàgg la njàng mu sew la njàng mu am solo lii lépp bu ma ko dee teg nga gis weeru koor liimu mu jagoo di weeru alquran masajid yi ñoo ngi profité di jàngale alquran xalaqaatu tafsir yi mu am solo lool muy sunna it nag ndax jibril alayhi salaam fu weeru koor masaana teru dana ñëw ànd ak sang bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jël alquran di muraajaa téere bi di ko réviser moo tax salafa saalih al umma ñoom day daanan ti profité lu bari bari kon ndonga daara yi nga xam ne yéen a génne ci daara yi mokkal alquran weeru koor a ngi occasion la delluwaat ca daara ja ñu teel la nga tariwaat kaamil bi alquran kat ah nga di ko nafar dafa war de ndax moo gëleem gu nu jatang ñoo yem bu leeree ne jatang ba rocceeku na rek bu ne tër mënatoo koo jàpp bu dàngañee bu xasee dàngañ ah rëcc mënatoo ko jàpp maa ngay tërër rek naan di kon alquran bi ndongo daara yi laabire jotaayu laabire fii ci Islam TV mi ngi wax ni occasion la Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu mi ngi wax ni man de bëgguma bis bu ñëw ba jàll te sama bët bi teguwut ci téere bi kon fexe am ci wirdul quraan yi mbokk jullit bis buñ xëyee rek mingi non noonu rawati na wéru koor ma sha allah lo am solo la kon tege na sunu mbaram fi ci lay biir euh xaajagul ganjagul bay xaj delu ci wat ñettelu jotay bi ci koor gi insha allah Serigne Mansour ànd ko ñom Cheikh bokkar ak ñom Aline Badra ci walu technique bi way ànd ko mbokk téléspectateur ak soppe Islam TV yëpp dinañ wax Islam TV nak moy li nga xamni da tàmbale ci islam yam ci l'islam kon nañ fi baye xel suñu publicité suñuy yeglé suñuy conférence nga ñew fi la nga naroon a def lenen nga def ko fi islam tv kër gi daal di dundu su dundé rek l'islam daal di ma sha allah yalla yalla gëna dundal pas-pas yi gën ko natal yaram yi wër ñu wor mu nangul nu corona juk fi ba faw aj gi di ma sha allah ñu defee ko nañ ko daan defé Serigne Mansour dox daje ci ay bis bi ñu deggmal ci émission hen tabir fi ci Islam TV wa akhiru da'wana

mënti doon del jaamu sa borom loo mënti am di xeeb sa morom am am saxul ñàkk it saxul soppiku jamono